sa safoo seen site bi ci indil ay wàccaay ak ay leeral yu ñu ci bis bi nga xamante ni moom la ñu nag muy 18 safar di bis bi nga xamante ni sëriñ bi ci la demoon liggéeyal islam ñëw indi noflaay ngir islam ak xaw bépp kon loolu lu ñëpp bokk na ñun dañoo bëgg a ànd ak yéen kon ci seen site bi bu leen dara daw incha allah ñu ngi taxaw ak sëriñ Fallou mel na soxna Daba. dégg nga di sët ci Serigne Fall ñu ngi koy ziar baax Serigne Fall kon duñ def lu nuyu ko rek laaj ko Serigne Fall ñoo yëgee magal ñëpp dellu ginnaaw moom doon ko jàpp kon da nga xam dana sant bi ndax manoo jaayante loolu kon xam ne dañu daj dañu lu nekk ñëpp suñ jëm yi moo taxoon dañu daj lu nekk ñëpp suñ jëm yi moo taxoon kon jàpp naa ne kon ñun li ma war a def mooy fay ba pare kon kon sëñ Fallou bu ñu bëggee dégg màggal gi daan toll mbir la moo xam ne sëriñ bi liggéeyal lan ko bu war a fayee ci ñun sant la ko yàlla kon ndagam liggéey bi mënu woon a ñàkk kon du muy màggal gi kon yow xanaa ko naa bokk ci ñi nga xamante ni mosoo woon a gëm ni màggal gi moom du du am borom ndax namoon la nekk na ba moom mu ne biirub sama tukki bi ma demoon liggéey bi suñu borom dafa namoon trésor maanaam moom moo leen sama taali bi ba ma yaakaar te juddoo xam nga ne kon kooku ñun dëgg la li mu leeral nii sababu aybati an allah kon safi nga xawmi ni xaadimal taw ñu dugg wax am kon taxi xed yu moo taxoon serigne bi dem tukki won ba tax ñu wala ñëw magal bisam bi nga xam tan kon bis bi dal kon mënu wona ñak fa gis nañ ni manam magal serigne fàll yalla na fi maanaam aj bi yalla na fi leneen jàll na fi geneen xew-xew yalla na fi lu ne lu ne lu ne randal nañ ko waaye bu serigne tubaab kon faaw faaw rek ñu installé ko dundu ko ñu ko wara a lolu ban jàngan nga am yow ci ci kon jëmmi serigne tubaab ak sëñ Tuubaa liggéeyu bëree yi xam nga ñu liggéey ba tax ban jàngal nga am ci sëriñ bi ñëw gi mu ñëw ci mbindéef yi ak doon seen njariñ ak doon seen ak ram ak texe boo xamante ni yàlla làmbari na ko sëriñ bi moo ko jox mbindéef yow ban jàngal nga am ci sëriñ bi diggante sëriñ bi moom sëriñ bi ak mbindéef yi xamante ni moom la leen suñu borom booleel sëriñ bi war na doon texe du ma sëkk ak rawwaay ak jaarwaay du ma sëkk

ëllëg yoon man xiyaame da ngeen fay ñëw bi ñëpp ñu bi farata la bi ndigal la loo xam ni suñu tubaab moo ko bàyyi te fondement bi Sëriñ Tuubaa du musa daanu fondement bi Sëriñ Tuubaa du musa yëngu ndax sëriñ bi moom nee na mboolem ñi ñi pare taxaw ngir fondement am bi war ngir liggéey bi ngir bëma ci lenn ngir daanu liggéey bi mboolem bu pare taxaw ngir effacé ko na la bir nga xam ne yàlla ngay nga amal affaire ndax moom nee na birasuman baara seen birasuman bi baari suñ mun tamen baari saman moom sëriñ bi képp ci bari ngir léewtoog moom jëmm ju néew fa ndax jëmmi yàlla ju fees dell la yàlla ngay léewtoo te kenn mënut sa léewtoog yàlla ban ci dam kon suñ fàllu rafet lu baax kàddu yi nga xamante ni mën nga ci di gën a bu baax ci jàppanal bi ndax xat na yàlla li ñu indil ci ci wàccaay màggal bi ak bëggal ko nit ñi ci màggal ak nit màggalee ak liggéeyub Sëriñ Tuubaa ci xeet web ci jàmm yi loolu dañ la ci sant bu baax kon li ñuy tàggatoo mooy suñ fàllu ñu wax sa kàddu gu mujj looy wax murid looy wax ñi waaj ñi ñëw ngir mën a fees bi biir safar te tey la fukki fan safar ak ñaar di quatorzième jour ci weeru safar gis nañ Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ànd ak si moom Basiir ak njaboot bi suñu tubaab yëpp ak murid yëpp nga xamante ne murid yi bisu màggal bu ñëwee ajjuma laataa màggal ak ba ci toog yëpp murid dañuy am pas-pas dégg nga am tawféex dégg nga di buuxante ngir dàkk ci ajjuma bi ngir ànd ak sëriñ bi di ko dund nekkal nag sëñ bu ma sëkk gëm ne mooy sëñ ndax bis bii rek wane na ne mooy sëñ ak bis yi jiitu yëpp nag waaye bisu tey bii nag ndax ki nga fu mu mën taxaw ci adduna am nga fa ndam tey ñëw mu ñëw am ndaw ci kaw loxoy nasaraan si kon kooku jàpp naa ne lu ñu war def lu dul sant ko kon jàpp naa defu leen yàlla dëggu dëggal bëgg lu baax dafa séene daw lu bon lépp loo xam ne gis nga loo xam ne boo ko defee dana dëppoo lu dëppoo ngërëma sëriñ bi nekk ca te yàlla rek tax lépp loo xam ne soo ko defee mu wër na ne ne lu metti sëriñ bi la ah bay boo nga jéem koo daw te yàlla tax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon sëñ Fallou Gueye jërëjëf loolu lañ leen indiloon ci seen fukki fan ak ñaar muy quatorzième jours ci weeru safar biñ ànd ak seen seen bii di Alhamdulillah TV kon bu leen ko tardé bu leen ko rate mbooleem luy xew-xew di yëngu di luñ mën a jël ngir jariñe ko xeet wi umma bi ci lu jëm ci diine incha allah ci da nañ ko and ak yeen fi buntu kër sëñ Tuubaa da nañ ko and ak yeen fi buntu kër Cheikh da nañ ko and ak yeen ci mbollem lo xamanteni ni ñu ngi koy magal màggal ci mbegg gi nga xamanteni ni sëñ moko demone liggéey ko waaye nak wo ci ñun ñëpp ngir ñu and ko ci bisam bi nga xamanteni bisu sante la te bis bi nee sa su ñëwé bam ñëwé bok safar ca natuya ba safar ñëwé la ko yalla ubbil xamal na ni ko nak wéru yi saa su ñëwee moo daan doon ay nattu waaye léegi nag weer wi saa su ñëwtee ak cant la mu ni fataxta baaba sukkarin fi safar tayabta nafsi duuna duri aw safar kon nan ko xamee noonu bis baa ngi noonu bis bu rëy bis bu am maanaa bis bu am solo ci diine ak xeet wi ndax bu dul woon demam gi la maam Musaa Ka wax wolof nasaraani te kon billaay ñëpp dem niiraani kon bu leen ko tardé bu leen ko wuutee ñëw leen fii nga xamante ni mooy seen bi nga xamante ni ño ànd di sant sëriñ bi ci bisam bi di alhamdulilah alhamdulilah naskurullah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.